Aïssa Koné borom seen petit ci benn vidéo boo xam ne moom la ñu koy seen ay weenam ma nga ne fàng daa ci biti ak la mu ca col col ko googu la ñu bare bari ñu ngi koy ñaawlu ci yenn ay commentaires yoo xam ne ñu ngi wéy di dal ci kawam naan ko soxna si le ndaw si le defaraatal saw toogaay xoolaatal saw col ga benn commentaire bu ci nekk ak la mu nga koy wax moom ay Aïssa kone mel na ñu bare bari kontaan ñu ci façon bi muy solo façon bi muy wanee ay vidéo loolu lépp kontaan ñu ci ci boobu jamono moom dafa mel ni yëgul tinul xamul li xew ndaxte ma ngay ci yoon bi nga xam ne ci la nekkoon ma jël beneen yoon fekk ji waa AIBD aéroport international Blaise Diagne ba nekk ca Ndakaaru Ndiaye guinéen bi ñuy woowee Saoul Banks moom artiste guinéen bi le nga xam ne artiste bu siiw la foofu la ci Guinée bu mu ñëwee fii ci Sénégal ca aéroport ba dafa doon jàppanteeg ñi nga xam ne ay takku der lañu moom ci boppam la ñu gis mu daal di def ab live am ci téléphone di ko wane ñi nga xam ne ñoo di policiers yi moom ña ngay maslaxa ak moom nan ko wàccel sa téléphone bi bàyyil vidéo bi ngay jël moom ci boppam mu wéy di leen gën a gërbal di yuuxu ci kaw di leen gëdd di leen xamal ni leen benn moyen it mën a tax ma défendre sama bopp mooy bi ma am ni le wan ko ci vidéo bi ñëpp di ko gis loolee moo tax may jël samay vidéo bàyyi leen ma ma continuer sama jël ñu naan ko arrêté le mu ne du arrêté moom artiste guinéen boobulee ginnaaw bu mu jëfee jëf gi ni mel kenn ku ci nekk ak la nga ca xam yenn influenceurs yi fare ci Guinée moom kenn ku ci nekk yaa ngi génn tàmbale di ci wane saw sànna ak sab mer ñi nga xam ne ñoo fare fii ci Sénégal ku ci mel ni DJ Awadi mais yaa gisee ak ñeneen ci ay artistes sénégalais daal dinañu génn ñoom ñëpp jàppal ko aw tànk xam ne moom la ñu ko def ci aéroport international bu Blaise Diagne bu Ndakaaru Ndiaye seen ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk biti réew moom tamit daal dina ci àddu génn na ab communiqué di xamal bépp guinéen boo te lépp la ak a yow artiste waxal lenn daal dinañ la ko proposé mooy ñaari yëfe ngi nii tege ci taabal ji su la neexee nga daal di porter plainte ñu ànd ci ak yow ñëw dimbali la ci gunge la ci su la neexee itam ñu rek la ko àllam yaabal waaye ba ñu ko waxee leen mel moom artiste bi la dafa daal ne nañu ko rek la àllam yaabal ndaxte moom ci boppam bu ñu sukkandikoo ci seen ministère bi yor bitim réew xam ne ni moom Saoul Banks def na ay njuumte yoo xam ne jot na ko amal ci aéroport ba ndaxte dafa lànk ne du obéir ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi ñoom ñi nga xam ne ay policier lañu bëggoon ko fiy moom mooy kan ba suñu takku dere du ñu jëflante ak moom képp kuy dugg Sénégal ñu la contrôler képp kuy dugg Sénégal ñu la xool ndax sa lépp mat na fan nga jëm loo fay def su fekkee amut lenn loo xam ne lu ñuy tere la ñu bàyyi la dugg naturellement nga dem sa yoon su fekkente ni itam am na lu ñu gis ci loo xam ne war nañ koo mën a signaler ñu signaler ko fa fasaasa ngir nga bañ fee indi ab tooxi doona wala luy toj aw penc moom Adamo nee na kookee mooy kan mooy kan ba tax na kenn du ko contrôler moom laay waxal na rek le peccam ci mbaarambay mbaa mu xam ne fii mu dugg Sénégal Sénégal Sénégal nag mën nañu teraanga boo ñu bëggee jàppee ñu ñàkk fayda ñu daal di koy jëflante ak yow dal ci sa kaw wax la dëgg yoo xam ne doo ko mës a fàtte moom Adama wax na dëgg ki nga xam ne moo di jaara bu seen petit gàlle moom mi nga xam ne da doon mariage ni ki démb ñu gis ko mu daal di toog ci aw lalam moom jaara moomale ca foofee ca Thiès di làkk ay xasida maanaam di jàng xasida sëriñ Serigne Touba ba ca gënoon a fës mooy xasida bi nga xam ne moo di Sarsara da ko tari ba mu jeex tàkk waaye aadama moom ni ko nit ñi loo bokkul ci ñooñu lee dafa daal génn xamal xamal ko ne xasida yi bi nga ko jàngee du début à la fin jaxase bàyyi leen xasida yi ngeen di jaxase bàyyi leen gis gistal bi ngeen di def lépp lu ngeen di def rek fokk ngeen yokku ci ngistal xasida yi bokkuñu ci bu leen foowee suñu mag ñi bu leen foowee suñu diine ji su fekkee da ngaa bëgg a jàng xasida jàng ko ci anam boo xam ne anam bu leer nañ la waaye bu ko jàng di ko jaxase moom aadamoo nag nee na aadamoo saab ma waxee ngeen dal ci sama kaw waaye du tere dinaa wax dëgg am na loo xam ne ngistal la ak bëgg yàq suñu diine ji te ñun duñu ko nangu képp ci suñu diine ji di dal ci sa kaw ci nu mu gën a gaawee moom aadamo yekkati na ketamit nga xam ne moo di jaara bu seen petit gàlle xuloo bu saf sàpp moo doxoon diggante maarañas ak Cheikh Abdou Bara Dolly ca plateau confrontation Cheikh Abdou Bara Dolly ca plateau ba la daal di doog di wax ci Cheikh Bara Ndiaye seex Bara Ndiaye mi nga xam ne bu mu duggee biir kaso Cheikh Abdou dafa daal di toog ne Cheikh Bara daraan jooy jooy yu métte métte ndax kaso bañu ko fat ba noppi itam këram may ki ko yoroon moom maarañas loolee la weddi ba teg ko fi suuf ba ni xamal la ne Cheikh Bara Ndiaye amul benn yoon bu mu mës a jooyee ci biir kaso ba beneen bi ci topp itam këram képp ko taxaw ne dimbali na ko fukki junni weesu ko ak moom man Mara Niass maa xam li ma wax te itam aw ma contact ak Cheikh Bara Ndiaye moom it di Mara Niass wax ja ak jokkalante ba ba mu bëggee gudd Cheikh Abdou Bara Doly mënatul woon toog ci ba mënatu ko woon muñ ci la daal di jékki-jékki teg ci aw microom quitté plateau ba tranquillement dem yoonam bàyyi fa Mara Niass mu wéyal waxtaan ba moom ak Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne moo di ca Assane Diouf mi yàgg gisee waykatub sénégalais bi moom itam defati na leneen génn na ay kilisa yoo xam ne ñëpp a ngi ciy wax jamono jile Mia ab sortam su gàtt la daal di sol teg ci ab t-shirtam bu weex takk ay lunettes de soleil am toog ci benn dessert di ca profito mu mel ni Mia mu ngi ci ab liggéey waaye jamono jile mu ngi détendre maanaam mu ngi wane ni mu ngi profito ci dund gi nga xam ne ci lay dund jamono jile donte ni sax saa bu génnee nit ñi wax ci la mu sol ñu wax ca waaye terewul moom Mia mu ngay wëy ci la mu wëy mu ngay liggéey liggéeyam te saa su nekk mu ngi wane boppam ci li nga xam ne moo di ci réseau social bi ci ay followers am saa su nekk mu jox leen ay clichés saa su nekk itam mu wan leen boppam ci li nga xam ne moo di ci liggéeyam Bijou Ngoné bu 2STV borom confrontation moom animatrice bi nga xam ne mooy animé boobu lépp émission dafa dem def ab chirurgie maanaam wàññeeku ba jeex tàkk moom Bijou Ngoné wàññeeku gi nga xam ne jot na koo wàññeeku graisam bi nga xam ne jot nañu ko génn ci moom tax na jamono ji jile fu mu toll ma ngay fotowu ci taayam bu bees bi nga xam ne moom la ñu ko amal jamono jile Bijou Ngoné dafay sanc ay yérem yi rafet daal di photo wu posté ko ci paasam di wan nit ñi ne leen léegi nag wàññeeku na léegi nag daanaka ab tay fiin lay bëgg a ndirool moom Bijou ngoone gannaaw chirurgien le dafa mel ni ku sawar loolu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum foto ak la ca aju kawteef mu ngi ci biir kawteef point com benn waay boo xam ne ab détenu politique la gannaaw ba ñu ko libéré mu génn fa nga xam ne moo di ca nungu siin ni ki yeneen détenu yi kenn ku ci nekk dékk nañu la micro laaj la lan moo la yóbbu biir nungu ci fan lañ la jàppee naka lañu la jàppee kañ lañu la jàpp nekkoon ndax yàgg nga ci kaso bi ba tey jile ngay soog a génne moom waa jile ba ñu ko dékkee micro laaj ko ne ko an naan moo tax gars yi daal di lay jàpp fàtt na ci nungu siin bi da nga doon manifester waaw mu ne déedéet mësuma manifester damaa mës a wàcc rek di dox ba ci benn barab ñu daal di may interpeller benn waay mu ñëw taxaw sama kanam ne ma sëñ bi noo tudd ma ne ko diw man de nangam laa tudd sëñ bi noo tudd ma wax ko sama turu mu ne ma dama laa xaw a xàmmee mu ne ko waaw loolee mën naa nekk ndaxte jamono ji dafa xat kenn ku ci nekk mën ngaa xàmmee sa morom loolee noo tudd mu ne ko nangam laa tudd ba mu ko ca tegalee saw sant lan la mu ne ko Sonko laa sant mu ne ko Sonko nga sant ba mu ne ko waaw ci la ko daal di jël taxañ ko ne ko ci manifestant yi nga bokk gars yi tàmbalee ñëw di ko gërbal jël ko dugal ko seen boîte yóbbu ko yóbbu ko prison mandat de dépôt ko ba tey lay soog a génn مغادلت من aparuma kirmatan minarta arnan fe ajawma mansara innal lazina ila sarsara kharkhasadu sayaratin farhu taarani aw sarahi Porque seria tua carinha. Já, porque eu <laughs> <laughs> salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi jaaral seen petit gàlle dañ ko doon takk may nañ ko ki nga xam ne moom mooy Aliou Diagne yàlla na sëy bi barkeel mais lii mënoon naa ñàkk xasida maam borom Touba yi ngeen di fowe dama ne leen bàyyi leen naa fekk gis naa leen ngeen di commenter naan macha allah jëf yàlla na yàlla barkel murit dafa neex moom lay wër doon murit dafa jafe de doon murit dafa jafe kii xasida bi yépp da koo jaxase li mu juuma bëri commencement ba fin da koo jaxase mënoon naa ñàkk kenn tegalu ko bëgg rek ñu naan waaw murit la taalibi sëñ Tuubaa la gëm na ko jàng na xasida yi déedéet demal nga gëstuwaat nga jàngiwaat yàlla na sëy bi barkeel Sénégal ngeen bàyyi naa fiq mam borom Touba bindul xasidaam yi pour ñu koy fowe sëñ Touba bindul xasidaam yi pour ku jóg rek di ci mbubboo yoonu murit xasida yi da nga koy bëgg mu bëgg la nga fonk ko mu bàyyi la munoo nekk seen petit gàlle di mbalax suba ngoon di toppandoo ay waykat ay musicien di mbalax suba ngoon di sol lu bon di taxaw ji ay kaw seen ñu naan la yow yaay Titi yaay Viviane wala yow yaay euh, yow yaay Beyoncé wala yow yaay Rihanna nga ñëw di ñu jéem a mbubboo ci Serigne Touba yoonu Serigne Touba di noonu bu fi kenn aadama dafa soxor aadama dafa iñaan dëgg laay wax yéen ay naaf fekk ngeen xasida maam borom Touba yi ngeen di jaxase di mbubboo seen mariage yi ñu naan ay murit ngeen du ngeen dara xasida bi da koo jaxase lépp la jaxase lépp la jaxase commencement nag laa wax de ba amul benn baat bu mu ci wax normal commencement bafe fee lépp jaara seen petit gàllé da ko jaxase bàyyi leen xasida maam borom Touba yi ngeen di fowe bàyyi leen xasida mag ñi ngeen di jaaxaane ku waxul dëgg wax fen bàyyi leen naa féq doomu xaraam yi commentaire macha allah yàlla na baat bi wér ay waay murid dafa neex bu ma sa ñoon am lii jaar a jàng na jàngul gat lépp da koo jakase jaxase kat la waaw loolu laa mënti li may wax mbirum sey mi nag yàlla na ko yàlla barkeel mais lii mënoon naa ñàkk jaara ndax teguñu la fu boo mënul rek mënoo jaxase baaxul wasalaam.